monsieur Gora Khouma ñu ngi lay dalal di la nuyu. ñu ngi lay fay madame. voilà may fàttali na yow yaay secrétaire général union de routiers du Sénégal euh, tey ji euh, mu am benn arrêté bi nga xam ne gouverneur Dakar génne na ko euh, di dakkal li nga xam ne mooy circulation yenn gros porteurs yu am 3,5 tonnes jëm ci marchandise yenn waxtu yi ci yenn axes yi tamit nan ngeen jàngatee mbir mi. waa gis nañ ko de arrêté ndax ñun bi ñu dajee ci dernière réunion bi da bu ñu defee lecture proposition arrêté bi nekk moom quatre te wóorul demee noonu ndax booy ko da ngaa woo ci te yow li ngay wax rek mooy am jarul oo kenn ñun dañoo joxe suñu xalaat waroon nañoo mën a au moins ci biir xalaat yi ñu gis ci loo xam ne xalaatoon nañ ko ñu jël ko waxoon nañ gouvernement aussi ne leen yéen bu ngeen appliqué tere bi. Mhm. de six heures à dix heures. waa oto camion yi jënd ci région yi bu ñu ñëw fan la ñu taxaw di xaar six heures amul foofu oto di taxaw pour xaar six heures. Mhm. est-ce fii ci Mbao Sénégal jox na Maliens yi cinq hectares yàgg na. Mhm. ñoom bu ñu jógee Mali foofu la ñu taxaw am nañ place dax ne gouvernement bi maanaam maire bi jox na leen a sept hectares fii Dakar Mbaye gouvernement bi jox mhm. bu ñu amoon sept hectares ñoom tamit ba ñu am cinq bu ñu ci région ñëw taxaw ba seen heure départ départ ñu dem bu ko a mhm. bu ñu nee six heures bu oto daw waa oto yi fa la ñu taxaw di gaare di xaar six heures malien mu am na fu ñu taxaw di xaar loolu problème la gis nañ ne loolu discrimination bu yaatoo yaatoo la article 4 bi aussi ci seen yeneen article yëpp ah même bu ñu bu ñu naqar tamit article yi mu wax dafa leer nañ. Mhm. mais article quatre li mu wax dara leeru ci dara leeru ci ndax dañoo gis foofu ne gouvernement moom am na sañ-sañ ah am ñu may ñuy daw waaye am xam nga yooyu ñu may ñuy daw. Mhm. ak kam yoo xam ne du leen may ñuy daw loolu la dañoo wax ne tere daal bu yaam daay war a yaatu ñëpp dañoo war a bokk tere bi ah bu ñu nungul tamit ñëpp dañu war a bokkal nungul. Mhm. mais waru am deux mesures. te bu fekkee ne gouvernement am na ñoo xam ne moom am na sañ-sañ yu may leen te ñun xamuñu ñan la war a may ñu ñuy xañ bu ko defee problème moo tax ñu ne article 4 bi leerut yeneen article moom leer na nañ neex na ñu naqare na leer na nañ mais article 4 bi leerut ndax gouverneur bu ne am na sañ-sañ joxe man daal li ma xam mooy interdiction daa war a yaatu. Mhm. interdiction euh, autorisation aussi daa war a yaatu. Mhm. te gis nañ ne article bi lépp leer na ba mu point boobu ñu wax article 4 leeruñu. Mhm. hectares yooyu sax nga xam ne tudd nga ko nga ne bu nga boo sañoon ñu jagleel leen ko yéen gros porteurs yi su ko defee interdiction bi mu am mu am fu mu ñu leen may ngeen taxaw euh, amoon na ay projet yi nga xam ne annoncé woon nañ ko ca jam Diamniadio atu 2016 muy gaar bi nga xam ne moom lañ leen bëggoon jagleel fuñ ci toll wala car dañ koy tudd parti parti gros porteur mm. mais du parti gros porteur dafa am benn marché bu nekk foofu day yeb légume muy légume ci tubaab bi ko wax légume mhm. ñooñu ñoo yeb di légume ci àll ba ñoo indi ko ci conditionnement boobu ñu traité ko foofu muy gën a porteur yi indi foofu mhm. muy camion yi ndaw yi jële ko foofu di ko indi yi mais ñu tudd gaar boobu gaar de gros porteur mais ab du fa dem fer du fa dem ngooñ du fa dem fer du fa dem mhm. oto yi yëpp légume dog la ñoo fay dem kon dañ koy bind gaar de gros porteur ba yéen journaliste ngeen na gaar gros porteur la te mhm. du mhm. jàpp ngeen na tey euh, jëluñu en compte li nga xam ne moom mooy euh, seen i proposition ndax am na leneen li nga xam ne dangeen koo fas yéene def ngir nag ñu déglu leen. waa xam nga xam nga port de Dakar def na sax lu rëy luñ koy gërëme di ko AGS jiite ko muy benn secteur privé boo xam ne bii mooy liggéey ak port. o mhm. moins sa parking boobu war naa mën a def quatre cent cinquante camions. Mhm. mais du parking boo xam ne bii dañ koy taxaw lu yàgg. gën ngaa bari dañ ne deux heures temps ba trois heures temps maximum pour que camion boobu daa war a amati bu muy jëlee port rek ah jaay ko. Mhm. mais ñun suñu problème mooy transport la ñuy def transport ku ko wax wax rotation ñun saa bu xoolee problème yi ñu mën naa taxaw daal digguñu fenn yoon ñun nañuy tourné kon buñ ñu utalee fu ñuy jaar ak fu ñul jaar wax wu ñu daw ak wax wu ñu daw mais dañu am problème parce que yeneen yi boo déggee ñu ne camion dafa daw mais boo ko tee suñ port nekkul ci capital ba nekkul ci capital ba port Dakar rek dafa nekk ci capital bi kon il faut mu ànd ak camion beneen bi day ñu circulation bi moom moo waral ñu tere gros porteurs yi ñëw Dakar mhm. dama ne yéen journaliste invité leen bu ñu te 16h ba 20h bu ñu teree ne benn camion bu mbuusi tamit boo ñëwee da ngaa dem ko fekk ay embouteillage. Mhm. ko embouteillage bi du camion ñëw fii. Mhm. benn bi tamit ñu ne ay accident accident am na accident du camion rek ñoo koy def li may wax nag transport en commun particulier ñëpp fay def accident parce que yow de président de la République sax nga bëri def na accident. loolu kon accident oto moo koy def ak nit moo koy créé ba kon waruñoo dépendre ci accident rek ba tudd nekk gros porteurs yi non non non waruñoo joxe gros kon du benn marque oto mooy rëy nit te am naa sañ wax ko ndax union du Sénégal dafa jël en compte transport des passagers maanaam paas képp kuy laaj paas oto boobu muy taxi muy njaga njaay muy bis lu mën doon mhm. dañoo bokk ci biir union du Sénégal ak or bépp camion boo xam ne bi bu ndaw la bu dañoo bokk ci biir union kon man am naa droit wax ci ñaari côté yëpp mhm. moo tax dama ne accident dépendre ci benn catégorie du poids lourd rek moo def accident du transport de passager rek moo def accident képp ku yore sa oto mbaa sa moto mbaa sa traite parce que bu ci kaw tali bi di nga def accident kon accident képp ku laal tali bi di nga ko def kon bu kenn intéressé ne camion ñoo di nga accident ba tax ñuy tere bare loolu jaaduwul ku mu am ndey ku mu ndey wur fi am moo suñu diri saawaay dañu war a ànd ak moom di liggéey kenn ku nekk si bureau ba ngay dem kenn nekkul bu heure saaba bu dugg ndax da ngeen fas yéene attaqué arrêté bi non non mënuñu ko attaqué pour l'instant parce que man mënu ma cee wax dagul parce que góor ko ma nañ interrogé muy wax mais décision toujours bureau exécutif mooy dajaloo te forcément ñu dajaloo pour effectuer ci wàllu arrêté boobu lay am na ak la may war a wax lépp bureau exécutif ñoo nga jox mandat dama lii lañ décidé mais pour l' instant naqar bi nga xamante ji ak amendement yi nga xamante defoon nañ ko te jëluñu ko en compte wax ko parce que wax nañu deux heures temps gisuñu ko wax nañu pardon parking bi ju gisuñu ko waxoon nañu lu bare bare bëri gisuñu ko ku mu am la ku am ndey ak ku ndey ba am mais ndey mhm. euh, benn waxtaan gi ñu amoon ak ay gros porteurs ñu xamal ñu ne organisation bi dafa des ci wàllum seen secteur bi ñoom jàpp nañ sax dafa am vide organisationnel ba tax na nu leen neex la ñuy réglementer secteur bi yow loo ci xalaat. waa xam nga xam nga organisation transport day boo waree mu ne transport transport transport effectivement transport dañ ko dañ kaa Mhm. maanaam informel bi moo ci ëpp formel bi mhm. dawru demee noonu ab secteur la comme yeneen secteurs yi mais informel bi dafay bari te informel fu mu bari rek désordre am mhm. ñun am nañ ministère des transports mais amul ministre du travail parce que ay euh, dafa war a dugal loo xam ci def dafa mel ni ministère du travail dafa fi nekkal mais secteur privé dafa mel ni daal jël en compte ba secteur de transport te ñun ñëpp ay doomam lañu ñun ñëpp dañoo war lii ñu nekk nii informé mu jëf informé nag veut dire désordre. Mhm. te désordre du du jur jàmm amul benn njëriñ dañ kaa war a war a nekk nekk fi lu wóor nekk ñu ngi leen jëlee fi mu ne moo une bonne organisation loolu la ñu bëgg gouvernement def ko nit ku nekk la nga mënuloo sa bopp dara day lay mënal. loolu waral ñu ngi fi police ak xam ne jaaruñ ci transport dañ kaa a jubanti te ñi ka moom ñoo ko jubanti mais ñi dégg réew ñoo ko war a jubanti ba tey jii sa syndicat ndax euh, dafa am euh, benn pàcc bi nga xam ne boole na ko ci ay revendication jëm euh, jëm ci réglementation secteur transport gros porteurs yi. ñun suñu suñu suñu suñu bu yàggul rek dem nañ grève am nañ quatre points ne tey nañ ci mm-hmm. te moom ci grève ba ay négociations quatre points quatre points yi bàyyiwul dara ci transport bàyyiwul dara quatre yooyu mais am nañ points yu bari nañ ci jiwoon nañ doxal. li nga xam ne mooy ministère euh, transport dina ko jël en charge li ministère moom dina ko jël li ministère forces moom dina ko jël yàlla def na bi ñuy juboo fa war a dox loolu ko teg comité bi sur place ci la feebar bi comité dina dugg Sénégal ci même Sénégal dugg Sénégal booba léegi nag amul benn avancé ci ci ci loolu moo waral fi nag relancé nañ ko wax ne gouvernement bi ne ko eh ñun kat dañoo yaakaaroon ne faire bi un du ko fi passé. Hmm. mais comme nag day bëgg dëgg dëgg ak ñun te bëgguñu ko ñun bu ñu xaar départ am dañuy ànd ak ñun dañuy ànd ak moom ñu di régler suñu problème ba saa bu départ mais mënuñoo toog di xaar Covid 19 mu départ Sénégal pour ñu mën a commencer continuer suñu négociation mënuñu ko tey mënuñu ko ëllëg négociation yi day ànd ak Covid ba saay bu demee ñu continuer suñu réew. loolu moom dama lay wax ne la quatorze mois bàyyiwul dara dara transport te négocié nañ ko ginnaaw bu ñu jógee ci garab boobu. kon mën nañ jàpp ne seen euh, plateforme daal yéen ngi koy wéyal ba tey yéen a ngi ci négociation yi. waaw ñoo tegoon commission laa wax pour que commission boobu point par point benn bu nekk ñi ko war a saytu saytu ko. Mhm. dama ne ci même semaine boobu la feeru dugg. te même semaine boobu la donc mën nañu wax ne boobaag léegi dara doxul. Mhm. moo tax ñu bëgg a pour que activité négociation yi mën a dox. mën a doxaat tey jii lan nga ñu mën a wax monsieur Xuma ci li jëm ci transport euh, diggante Sénégal ak gambi jëm ci gros porteurs yi. partenariat accord yi ñu ci signé ndax ñu ngi koy respecté. mu ma ne ndax accord yi ñu ci wax ñu ngi koy respecté. non accord accord ñu am accord yëpp buñ fi Aline bëggoon ñëpp. diggante Sénégal ma ne diggante Sénégal ak Mali jëm ci transport. voilà voilà foofu laa. ñun ay dugub rek lañu. Mhm. te wax naa la mën naa wax ne soixante-dix pour cent ci feetu Mali mi ngi jaar Sénégal. Mhm. kon bari na yore camion ah, di ci dund feetu Mali lay tax muy dund mais bu doon feetu national bi donc la kon dina demee neneen. Mhm. kon du port rek moo yore feetu Mali bi cimenterie yi yeneen ak yeneen. xorom saak may daal seen lépp parce que mën naa wax ne soixante-dix pour cent day jaar Sénégal. ndax loolu lu am solo lu ñu war a lu ñu a a téye la parce que mooy rek suñu problème mooy rek suñu gouvernement mais mooy rek aussi problème mu acteurs routiers yi vraiment loolu partenariat boobu daawuñu daa war a suuxat mu rafet. te te te te gudd fan. loolu moom rafet na te dañu gën a puus mu gouvernement na doxal wàllam ñun acteurs routiers yi ñu doxal suñu wàll ba dund googu mën a yàgg ci amul marché du fa ñëw donc seen dund lépp ci tali bi lay jaar comme raaya bi amoon raaya amatul lépp ci tali bi lay jaar kon moo waral ñu ñu ñu doxal ci wàllu transport. Mhm. tey jii crise bi am Mali gis nga ko CEDEAO ñoo ngi ciy jël ay matuwaay yéen ñii gros porteurs yi ndax dafa am lu mu leen yàqal lu bari ci seen liggéey. waaw man de bu ma nee bu ma amee droit conseiller président Macky Sall. Mhm. dinaa ne ko na jël euh, euh, digal boobu digal yooyu nga ne moom la CEDEAO. na ñu ko jël sànni ko géej parce que ñi ëmb CEDEAO euh, ay président rek la mhm. te fekk Mali bi yeneen réew la doon jaar mhm. ba def perte boobu jóge la ëpp ci ñoom di wàcc ci loxo loolu daa bi Sénégal ñoo réew yooyu bu ñu nee nañ boycotté Mali mhm. dafa fekk ndax ginnaaw wax soxla a def ma ne ban boo doon mag ma laa wax ndax lii ñuy wax di ñu seen loxo la nekkoon yàlla def na tàbbi na ci ay loxo moom kon naka téye fukki loxo juróom ñaar ndax bu bu àndee ci boobu bu bu bu boosa bi jeexee mais Mali yi mën nañoo delluwaat ci yooyu te boo ko régee perte Sénégal la dama ne man bu doon ma ma leen dama leen ne seen wax jooju sànni ko ca xaj laa leen wax ca àll ba laa leen wax boo sagoo ma tey bokkul bokkul ma lëg ma ne amul géej kon buñu ma génnee dañuy téye traite bi ma ne bu foota dugg ba foota dugg dañoo bëgg rey Mali te bi ko def ñoom la ñuy wax gëmuñu ko day am lu ñu yore woon ñàkk ko mu tàbbi ci loxo Sénégalais yi looloo lañ bëgg xañ Sénégal yi moo tax ñu demandé boycott man boo doon Macky Sall du ma ci def du ma ko ànd la sa déglu mën na maa ànd ñoom si lépp ba des si transport ndax transport ñoom ñoo ko yore ba mu tàbbi sama ay loxam su ma caaxaane transport muy delluwaat seen kon daal yow da nga gis ne piège la daal piège bu réerée la bu Macky Sall xamee a piège la piège la bu Macky Sall na piège la lu lu góoru ko ma yore woon fa ñàkk ko ñëw si yow moomu man ma ko baaxal damay bëgg a dir sax samay loxo moo waral ñu bëgg di imposer nit ñi boycott Mali amul amul dex amul dara ñu ne ñu embargo parce que crise dafa am di euh, euh, crise boobu am na yàgg na fu nekk dama ne Sénégal lañ bëgg arranger marché bi ci moom na Sénégal bañ. kon depuis ba boy ba ñu waxee waxi boycott bi amul benn camion bu jógee Sénégal dem Mali. si am na am na am na yu dem am na yu dem mais mais daal daal doy na waar daal doy na waar daal doy na waar. doy na waar daal. d'accord juste waaw man daal boo sañoon. Uh-huh. ñu ne boycott am ubbi frontière bi totalement. nañ doon demee démb bërki démb ci marché bi di lekk bu di tabaxee bu nit di solok bu ñu mën di doon. Hmm. marché bi yëpp fay dugg marché bi fay waaw juróom lépp ay dugg génn comme ni amee woon man loolaa d'accord mais bëgguma digg lii la ñu mayee lii duñ ko mayee dama ne transport transport la peut-être malien yi tukaay bi raam rek a war a dem tout la ñuy lekk rek a war a dem la ñuy tabaxee nag ak lépp a war a dem. monsieur Gora Khouma merci beaucoup. merci madame. may fàttali ne yaay secrétaire général Union des routiers du Sénégal.